et puis di bàyyil xel bu baax collectivité territoriale loolu am nañ ci mbégte ñu leen ci gërëm di leen am na solo monsieur le maire dañuy daal di euh, dooree waxtaan bi ci li nga xam ne moom moo jëm ci forum de bi nga xam ni euh, mooy neuvième édition bi nga xam ni Sénégal dalloon na ko ni ren ji ndox nekk lu am solo tey euh, yéen ñi nga xam ni fekkee fekke ngeewoon ngeen li nga xam ne moo jëm ci liggéey yi lan ngeen ñu ci mën a wax. waaw donc bokk nañ ci liggéey bu bu baax. démb sax mu nekkoon journée ba nga xamante ne dañ ko jagleel collectivité territoriale yi alors muy lu am solo ñuy fàttali ne euh, c'est la première fois que le forum mondial mu nekk ci neuvième édition c'est la première fois ñu tenir ko en Afrique subsaharienne muy lu am solo di remercier nag ñëpp ña nga xamante ne jàpp nañ ci ndax euh, de l'avis de des participants suñu collègue maire yi jóge ci yenn dëkk yi muy Europe muy Afrique ñu ngi rafetlu qualité organisation bi donc c'était très parfait euh, liñ ci mën a yokk aussi ci contenu forum bi tax na weccoo xalaat bu bëri ndax dëkk yu bëri ñëw nañu fekk si ku ne nag dëkk bu mu jànkontewul problème mu ndox foog naa amul mbaa bëriwul euh, ku ne nag indi ci indi na sa xalaat ku ne indi sa pexe maire yi tamit jóge ci bitim réew joxe nañu seen jafe-jafe joxe seen xalaat joxe seen pexe ndax ndox dafa am solo fu ndox amul rek dund mënu faa am donc ndox aussi day defar di dundal di jàppale mbay mi mais bu nekk ndox aussi day yàq maanaam su nekkee affaire inondation yu mel noonu donc li ci gën a am solo ci ponk ya nga xamante ne jàpp nañ ko te ma mën koo euh, fàttali fii mooy benn suñu gisee ndox ni muy taw ak ay milliards de mètres cubes d'eau yu muy taw ñu koy bay muy walangaan di dellu ci géej bi loolu te am te ñàkku ndox am ci dëkk bi ci dëkk yëpp laa wax sax donc loolu nekk na la nga xamante ne euh, lu war a waram ñàkk mën a nekk la foog ñu wutal koy pexe xam nañ gaa nguur gi mu ci xalaat bu baax ndax soo demee dëkk yu mel ni Asie ñoom loolu dañ koo soxal bu baax di ko di la récupération des eaux de pluie loolu nekk na un système ba nga xamante ne war nañ cee xalaat euh, beneen xalaat bi aussi mooy euh, ndox ba nga xamante ne mooy eau de wax na loolu l'eau de ruissellement bi la mais am na aussi eau bi jóge ci bout de vidange ndox moom itamit ndox ba nga xamante ne suñu traité boue de vidange yi mën nañ cee jëlee engrais muy muy naatal mbéy bi mën ndox mi fay jóg aussi suñ ko traité mën na jàppale arrosage bi mën na jàppale jigéen seen liggéey yu ñuy def donc loolu aussi traitement boobu loolu wax nañ ko bu baax sans compter nag d'autres solution euh, comme la kii daal désalinisation de l'eau de mer ak yooyu yëpp ak ay ay de portabilisation des solution de naturelles de dessalement de l'eau donc loolu yëpp ay vraiment am nañ ci ay xalaat yu baax. Mm-hmm. sunu réew gis nañu itam dalloo na xew bi waaye ci noonu itam euh, wàllum ndox gis nañ itam forum de l'eau bi dafa mel ni ab euh, xaajaloo lañ ci nemmeeku parce que gis nañ itam ville de defal boppam société civile itam ñenn ci benn pàcc defal seen bopp est-ce que boole woon seen doole organiser woon li ni mel gënut woon. waaw man yaakaar naa boole moo gën. ndax euh, ville de Dakar def na forumam. Euh, dama jàpp ne lu bëri dañ ciy rax politique te nag Sénégal dafa toll fa nga xamante ne léegi dañoo wasa dañoo war a bay lu ñu yëkkatee ñu dugal ci politique ndax su nekkee ne forum de l'eau ñu ngi koy waajal ay depuis ay presque deux ans ba en tout cas lu ko jege taxawal organisation muy répondre à un protocole précis temps bi ñu koy waajal di fixer activités yi di def programme bi xamuñu woon ne ki nekk maire dakaar dina nekk tey maire. mais ville de Dakar piloté woon na ko. moo ville dakaar Dakar bokk na ci ci boole nañ ko ci man commune la boole nañ ma ci de wax naa la démb c'était la journée des collectivités territoriales. Mhm. mais nag protocole ba nga xamante ne mooy protocole républicain bi le discours d'accueil ba nga xamante ne am na ñenn ñu koy réclamer naan maire de Dakar da ko war a wax dañoo war a jàpp ne su chef d' état Sénégal di recevoir ses compatriotes ses collègues chef d' état moom moo leen di dalal sommet mondiaux yi ñu organiser yëpp muy ay sommet aussi yi ak yooyu yëpp noonu lay demee donc nag xam naa ne dañ cee bugg rax bu ci bokkul te loolu lañ war a ba ndax loolu itam dañuy indi sa xel xel yi naan waaw maire de Dakar dafa waroon def mais dafa am un protocole républicain ba nga xamante ne day lié gouvernement Sénégal day lié yeneenu euh, dañuy lié ci yeneen dëkk yi ay naataangoom lay recevoir en tant que chef d'état moo leen di war a dalal ci seen biir réew dina am ay jamono yi nga xamante ne. ñeneen lay dalal loolu comme traditionnellement comme ni ko président yàgg defee ci euh, avec maire de Dakar bi fi nekkoon moom dañ ko def mais li ma bëgg rek ñu xam ne xaajaloo boobu soo xoolee euh, euh, warul ndax soo xoolee même forum de l'eau ñi ko organiser ñu ngi ñaawlu ni ñu utiliser ni maire de Dakar utiliser seen logo ci seen activité ñu ngi koy ñaawlu di ko dénoncer loolu yépp nag du ndabu Sénégal donc nañu bay lu ñëw rek ñu war koo politiquer yaakaar naa ay ñëpp ay sénégalais lañu su nekkee soxla askan wi moo tax ñu jóg suñu tollee ci jamono ba nga xamante ne lii soxla askan bi mën nañu bokk liggéeyal ko war nañ ko mën a bokk liggéey euh, ndax démb maire bu bëggoon a exprimer wu exprimer nga wu ñëpp wax nañu ville de Dakar war cee jouer rôle ñëwul donc bon noonu lañ ko mën a jàpp rek. mën nañ ko jàppee regret. waaw man de loolu moom ñaawlu naa ko loolu wax dëgg yàlla ndax dama bëggoon bakk Sénégal suñu jógee fii mu gën a rafet ndax bëgguma ñu dellu naan Sénégal dañoo xaajoo ndax amul benn acteur nag bu ñu beddi ministre bi mu fa woon société civile yaa nga fa woon ONG yaa nga fa woon collectivité territoriale yaa ngi fa woon ñëpp jox nañ leen kàddu muy waa Sénégal muy waa bitim réew ndax da ngay jàpp ne forum bi c'est un forum mondial Sénégal de koo héberger donc da koo héberger organiser ko. Euh, voilà ci kaw en tout cas yaakaar bi ñeneen ñi koy organiser am ci moom mu invité ñëpp nag la société civile mondiale était représentée les collectivités territoriales de tous les pays étaient représentées ñu ñëpp nag bokkoon def forum boobu loolu mu nekkoon di gën a rafet Euh, lu am solo la monsieur le euh, maire Omar Ba mooy maire bu Ndiop moom la ñuy dalal ci émission bi mais itam dañuy emboîter le pas rek daal di continuer waxtaan boobu Ndiop sa commune bi nga xam ni moom nga jiite naam euh, waxtaanee guñ sax ci jeunesse bi ndox bi nu mu fa mel. waaw commune Ndiop nekk na commune ba nga xamante ne am na jafe-jafe ndox loolu ndax soo xoolee ndoxu forage yi dëkk yëpp nag. Euh, fi mu toll nii. Mhm. gannaaw liggéey bi ci commune bi def maanaam commune Ndiob ndax dañ cee investir état bi jàppale ñu aussi ci yenn fànn yi ñu boole suñuy pexe ak suñuy mënin tax na amul dëkk tey bu nekk commune Ndiob te amul accès à l'eau aucun village officiel bu amul ndox amul ci commune Ndiob ñu def aussi ay branchements sociaux pour tous les ménages ñoom tamit ñu am ndox loolu sur ce plan de l'accès à amuñu problème boobu mais nag am nañu problème problème bi ñu am mooy la qualité de l'eau l'eau potable l'eau ndax eau bi ñuy utiliser mooy ndoxu forage bi dafa am xorom donc loolu nekk nag un problème très sérieux ba nga xamante ni suñu gasee teen yi euh, forage yi euh, ndox bi ñu am nappe do bi ñu am c'est une nappe d'eau salée gox yépp foofu nooñu lay mel donc suñu problème euh, à ce mooy loolu maanaam naka la ñuy dindee xorom bi am na ci sax jéegu ndax suba même am naa réunion à à Ndiob avec une structure qui s'appelle Wilo Wilo nekk euh, une structure une entreprise allemande qui intervient dans le domaine de l'eau euh, pour ñu xool yan pexe la ñuy def ba ñu mën a potabiliser ndox mi euh, def ay unité de dessalement ba population bi mën a am ndox mun ma nga xamante ne dina sell loolu ñu ngi ci réfléchir bu baax seet aussi ci loolu weesoo ndox mi ci wàllu mbay mi ndax dafa am aussi remontée de la langue salée loolu yëpp am na nu muy gàllankoore mbay mi loolu yëpp ñu ngi ciy wut ay pexe donc pour trouver ko solution ndax li ëpp ci commune bi moom euh, ndox mi ñuy naan mooy ndoxu forage bi am na nu mu mel ndox mu ndox mi neexul am na nag benn pàcc mooy yu nekkee sur la vallée morte du Sine ñooñu dañuy am ndox mu neex te ndox mi solewul à six mètres moo nga am ndox te ndox mu neex lay doon ok am na solo euh, léegi monsieur le yow léegi defal ñu euh, genèse pour ñi nga xam ni tey ñu ngi ñuy déglu xamuñu commune bu Ndiop dañ koy déglu euh, Ndiop ba fan la féetee ci diwaanu Sénégal waaw commune Ndiop mu ngi bokk ci région ak ci département wu Fatick Euh, mu feggoo nag ak région de Diourbel maanaam mooy dernière commune euh, ci euh, bu ci côté boobu nga xamante ne Diourbel wiilu Diourbel ci boppam moo ñu gën a jege commune Fatick Diourbel est à peu près à une dizaine de kilomètres mm-hmm. euh, la ville de Fatick mu ngi nekk à vingt-huit kilomètres environ donc ci pegg bi la nekk ci frontière bi la nekk mm-hmm. foofu la commune diggante Diakhao ak Diourbel donc foofu la commune u Ndiob nekk mu nekk une commune de vingt deux mille habitants nekk cent vingt sept kilomètres carrés nekk commune ba nga xamante ne aussi pour l'essentiel li muy dunde mooy mbéy ak élevage muy une commune agricole une commune délévage am tradition élevage une commune ba nga xamante ne am na ay jamono Euh, daañu woon jéggaani lekk maanaam que dafa amoon benn sorte autosuffisance alimentaire ndax dañ doon duy dundee donc euh, y de cela peut-être trente ans quarante ans ci gannaaw soo demoon foofu dangay gis ne y a quand euh, comment dirais amoon na autosuffisance alimentaire mm-hmm. mais léegi nag avec les effets conjugués de la sécheresse de comment dirais-je le pratiques agricoles surtout ak ni ñu koy engrais chimique yi ñuy utiliser di ko engrais loolu yëpp dafa dem ba lessiver sol bi. tax su suuf si gën a naatatul ni baaxatul ni waroon a baaxee. et donc da ci bu njëkk da nga doon béy lu tuuti nga am lu bëri mais léegi da ngay lu bëri te am lu tuuti maanaam suuf si. donc loolu mooy caractéristique moo tax bi ñu toogee ba léegi nag. ñun li ñuy ràññee commune u mooy c'est une commune en transition écologique maanaam c'est une commune qui travaille beaucoup vers la restauration donc de la fertilité des sols mu nekk commune ba nga xamante ne aussi am na ay coppite yu muy def ci mbéy mi ak mbéyit mi pour mu nekk mun a def benn mbéy mu sell mbéy mu mucc ayib ba nga xamante ne eh, amul tooke bi ñu utiliser bu yàqal ki ko béykat bi mbaa bu yàqu suuf si li nga déggee ngay wax ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum alam ñu njëkkee ko ci ponk boobu sa commune alam ji jox ko jox gëdd lool ci commune ba. waaw jox na ko gëdd lool te loolu sax eh, soo gisee commune Diop loolu lañ ko ràññee ndax commune Diop am na fi ay prix au niveau international eh, comment dirais-je eh, organisme bu bu mel ni Afiko FAO ni ñuy béyee une agriculture écologique. tax na que en mille neuf cent deux en deux mille dix huit début deux mille dix huit ñu am prix de la meilleure politique agricole locale ñu jox ñu ko rob donc commune Diop moo ko gagné ñu jóge foofu euh, en deux mille dix huit ba tey ñu am prix euh, de de la meilleure initiative climat donc jox ñu ko nag CGLIA mooy cité et gouvernement locaux unis d'Afrique mhm. donc joxoon ñu ko à Marrakech en 1918 Euh, euh, euh, daaw rek en deux mille vingt et un ñu ñu dem Abidjan. Mm-hmm. commune yu Ndiob am le prix de la meilleure de la commune la plus écologique de l' Afrique de l' Ouest. lu loolu yëpp. mooy initiative yi ñuy jël mooy li ma la waxee rek ndax dañuy delloo garabu place di am beaucoup d' importance nag pour dundalaat garab pour garab mën a bëri. ci njëmbat bi muy ci njëmbat bi mooy lu ñuy wax RNA. maanaam karkaral garab yi ci ci ci wolof loolu dafa nekk benn ponk bu am solo. ci bi ci ci ci suñu politique. deuxièmement dañoo dem ba taxawal benn pépinière ba nga xamante ne day produire ay plants wala ñuy jóge fii di jigaane ay garab. ñi ñi ñoo war a jóge feneen di ñëw di jéggaane ay garab njob donc loolu itam nekk suñu stratégie mm-hmm. leneen li mu nekk aussi comme ni ma ni ma la ko wax ci mbéyin mi dañuy expérimenté soo ko li li tubaab di wax agro écologie agro écologie mooy mbéy ma nga xamante ne doo ci def pesticide chimique de synthèse doo ci def engrais chimique de synthèse maanaam mbéy mu sellu lay doon ay tos ngay utiliser am ci ay pexe yuñ ciy def di ko expérimenter mu am nag ay résultats yu am solo ba nga xamante ne du ñu yàqu suuf si te aussi suñu rendement mooy ëpp rendement euh, rende suñu rendement mooy ëpp ye euh, day rendement bi day baax. Mm-hmm. maanaam ñi deful za suñu méthode bi ñi ñu wër soo xoolee ñun ñoo leen di ëpp rendement loolu mu nekk day ay évaluation mm-hmm. yaa nga xamante ne du ñun ñoo ko wax rek ndax dañoo jël ay organisme yu am solo tel que ak ISRA. ñoom ñoo ñëw def évaluation bi génne rapport bi saytu ko wane ne donc si production graine bi ñuy def de pratiquement ñooy doubler ñeneen ñi ñi ñu wër ñaareel bi soo xoolee biomasse bi maanaam gittax gi mhm. ak ñax mi génn ci dugub bi moo gën a baax yeneen yi moo ko gën a bëri c'est du simple au triple euh, soo xoolee aussi qualité séquestration de carbone dans le sol maanaam soo utiliser ñun mbéyin bi ñuy béyee donc day nekk du simple au triple aussi mooy séquestration donc day parti suñu li ñuy def day bokk di bindal di dundalaat suuf si. Mhm. ñu instauré aussi une radio euh, euh, qui a une forte orientation vers l'environnement. Mhm. mooy la 106.4 la voix de la nature di liggéey lu bëri nag ci euh, promotion aussi di. des fourneaux améliorés pour éviter la coupe de bois ñu ngi taxawal aussi benn centre benn benn mini centrale solaire ba nga xamante ne ci commune bi ñu ngi tabax benn am na ay benn ay ñetti village yu bokk benn mini centrale solaire mhm. ba nga xamante ne ñu ngi ko war a inaugurer du yàgg mu war a jox de l'énergie Euh, de l'énergie propre aux populations mhm. Mhm. donc initiative yooyu yëpp soo ko xoolee loolu moo tax ñu am prix yooyu ma la wax léegi est-ce que tey jotul euh, collectivité euh, territoriale yu bari mu ñu ñëw itam jànge wala jël xam-xam ci ni ngeen ni amalee euh, jéego yu am solo yi ci wàllum alam. waaw loolu moom ñu ngi ci échange ndax ñu dañoo bokk ci benn réseau dañoo bokk ci réseau des villes et communes vertes et écologiques du Sénégal commune yooyu nag li tax ñu sos ko mooy échange expérience maanaam yeneen communes yi nga xamante ne ñoo bokk association bi ñoo bokk réseau bi ñuy ñëw di seet. ñun li ñuy def mais ñun tamit ñuy dem di seet ñoom li ñuy def. Uh-huh. ndax du ñàkk ne aussi suñu demee ci seen commune dinañ fa am expérience bu ñu ràññee ah, mu mën ñu amal njëriñ. Uh-huh. donc loolu am solo la loolu rek li nga wax ni. mu am solo partage boobu euh, échange boobu moo tax ñu taxawal le réseau des villes commune vertes et écologiques du Sénégal. Uh-huh. am na solo commune bu Ndiob itam ci wàllum euh, pàcc ndax am ca commune ba. paj ma ndax mate na fa waaw xam nga moom fu mu paj mate à cent pour cent foo naa noonu amul waaye nag am nañu ay poste de santé ndax soo xoolee niñ ko répartir carte sanitaire bi am na ñetti poste de santé ya nga xamante ne ñoom pare na yàgg nañoo fonctionné am nañu un quatrième post de santé ba nga xamante ne suñ ko tabaxee yaakaar naa ne en terme de poste de santé couverture bi dinañu mën a respecter ratio yu baax donc loolu tamit euh, vraiment ñu ngi koy rafetlu nag ci jàppale nguur gi ndax lu bëri nguur gi ñu ngi ciy jàppale sax ñun dañuy renforcer mm-hmm. euh, moyen wu poste de santé yooyu mais mënoon nañ ko gën a mën a renforcer dax xam nga rek du ñëpp du ñëpp la seen loxo jot seen gannaaw. Mm-hmm. donc peut-être ñu moo taxit toujours ci suñu orientation écologique bi am nañu projet ba ñuy wax garab sa garab maanaam am nu ñu delloo cosaan. Eh, ci xool maam yi garab yi ñu doon fajoo muy euh, garab mooy arbre yi laa bëgg wax mhm. donc ñu xool garab yi ni ci doon fajoo ñu koy delloo ñu koy ñu ci bay xel mhm. ndax am na feebar yu bëri nga xamante ne euh, maam yi dañ ko doon faj ci seen euh, ci suñu garab bu garabu traditionnel lañ doon utiliser te tam bokk na suñu projet ndax day contribuer à la résilience sanitaire ndax du ñëpp ay am mën mën-mën mhm. ak pexe ya nga xamante ne dinañu mën a jënd garabu pharmacie. Mhm. loolu kon eh, yaa ngi wax ci paj parce que itam euh, dégg nañ la nga ne jigéen a ngi diggante Fatick ak Diourbel euh, ndaxam tey li nga xam ne moom moo jëm ci yenn ci ay évacuation laata muy am euh, premier soin yi lu ñuy wax premier soins yi ndax commune ba mën na ko di gérer. waaw comme mooy li la wax rek poste de santé ndax xam nga commune bi dafa nekk ci kaw goudron am na hôpital bu nekk Jaxaw c'est à 7 kilomètres. Mhm. donc am na hôpital bu nekk Diourbel c'est à dix kilomètres donc loolu yëpp c'est des hôpitaux am na beneen hôpital bu nekk Fatick mu nekk d'un niveau plus élevé que celui de Diakhao boobu tamit mu ngi Fatick c'est à vingt huit kilomètres euh, poste de santé bu Yob ak euh, poste de santé bu am na ñu ay euh, ambulance mhm. il y a des infirmiers ak sage-femme yu fa nekk donc yaakaar yaakaar naa ne sur ce plan là quand même am nañu tane na bu baax. la mm-hmm. nga xamante ne les premiers soin ak évacuation yooyu ambulance yi fa nekk war nañ ko mën a def léegi na am na poste de santé bu bees ba nga xamante ni ñu ngi koy tabax ah boobu itam dinañu fexe ni mu amee ambulance. moom mu mën a def ay avica ay évacuation ay évacuation pour. am na solo monsieur le maire euh, ci wàllum euh, éducation njàng mi. Mm-hmm. itam ñopp euh, fu mu ci toll. waaw njàng mi lu am solo la. lu am solo la bu am solo la am na yéegu yu bëri nag ñu def ndax bi ñu ñëwee doole ñun suñu premier mandat en 2014 dañoo instituer dañuy wax gratuité de fournitures scolaires dañoo fekkoon maanaam su école ubbee soo amee juróomi doom baa ñeenti doom nga war leen a jëndal ay fourniture day métti ba ñu ñëwee ñu instituer la gratuité des fournitures maanaam su école ubbee nii léegi ñun dañuy jënd fourniture pour l'école primaire. kenn du génne dara waa kenn du génne baa li ngay génne du bëri xam nga ñàkk a génne dara moom. mën na am mu ñàkk waaye li ngay génne moom. Mm-hmm. vraiment du néew lay doon. li ci ëpp fuuf ñun ñoo la koy jox muy cahier muy bic muy craie loolu yëpp ñun ñoo koy jëndal ak matériel la géométrie ba nga xamante ne ñun ñoo koy jëndal jox ko ci élèves yi muy genre gratuité bu njëkk ñoom ñoo doon jënd ay craie di jënd loolu dañ ko loolu c'était pour jàppale njàng mi mu baax loolu def nañ ko jàppale aussi ci suñuy partenariat defar ay école donc euh, yu ñu ñu tabax foofu euh, soo xoolee ñaari CM yi nekk Ndiob muy euh, seemu daaru ak seemu Njob bi ñu ñëwee ay seet ay seem ya nga xamante doon dañoo nekkoon noonu ni cundum noonu rek kenn clôturé wu leen. Mm-hmm. ba ñu ñëwee ñaari seem yëpp dañ leen a clôturé euh, ñu ngi sax pour le seem du Njob ñu ngi leen di defal déjà benn euh, connexion wifi pour élèves yi ak professeurs yi mën a accéder euh, gratuitement à la connexion wifi CMU mhm. euh, daar bi aussi am na nu ñu leen di jàppale ci équipement ci ay ordinateurs yu mel noonu mhm. ak mobilier pour génne da raafat donc am na jéego yu bëri ya nga xamante ne ñu ngi koy def ja jëmale ko ci ci éducation bi. lool tam mën nañu mën nañu ko bañ a fàtte grève yi. dañuy gis ni dañ koy nemmeeku lu bari à chaque fois dafay ñëw est-ce que tey euh, dakkal grève bi mu jeex benn yoon euh, gënul itam ci gouvernement beeg syndicat yi. waaw loolu moo gën xam nga euh, surtout li ci gën a metti mooy syndicat yi suñu jubloo ay période électorale. te ñu bëri nekk ci syndicat yi nekk ay politiciens maanaam soo xoolee grève bi dañuy gën a bëri mais ñuy jàpp ne ñi ñuy gën a mooy xale yi mooy élèves yi kon war nañu am benn genre prise de conscience en tant qu'éducateur hmm. ñu mën a sóoraale aussi intérêt ak avenir xale yi lu am solo la ndax nag quoi qu'on dise le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour l'éducation soo gisee ñaar ñu bokk niveau diplôme kii nekk enseignant ki nekkul enseignant kii nekk agent des eaux et forêts mbaa mu nekk médecin soo xoolee salaire yi ñu koy fay ak salaire bi ñuy fay enseignant bi du nekk benn ndax am na indemnité nga xamante dañ ko jagleel enseignant yi donc am na droit yu bëri donc nag waxuma ne doy na am na nañu droit de seen situation de seen statut loolu d'accord naa ci loolu mais nag dañoo wara xam ne nguur gi tamit ñëpp la fi nekkal nguur gi dafa am problème ndox mu war a régler am problème santé bu war a régler am problème tabax ay yoon yu war a régler donc il faut ñu comprendre loolu aussi euh, bañ a ëppal trop ci seen revendication ba di teg nguur gi la nga xamante ne nguur gi du ko mën a yenu ndax loolu xale yi rek la ñuy yàqal. Mm-hmm. ndax soo tegee nguur gi lu mu attanul aussi du ko mën a def. Euh, ci wàllu woowu xam dégg nañ la itam nga wax ci alam bi xëy na ni njob itam amul jafe-jafe ci wàllum cadre de vie. Mm-hmm. waaw loolu euh, cadre de bi moom ci amélioration rek nga koy dëkkee am na ñu ay projet cette année danañ def ay places publiques euh, ñu ngi def ay sensibilisation sur aussi la gestion des déchets yu mel noonu mm-hmm. donc euh, yaakaar nañ ne ba en tout cas ñu ngi ciy def ay jéego su amee itam xam nga kaw gi moom dafa nekk niroowul ak Dakar donc kaw gi moom neex naa dund en général ay amul complication yi nga xamante ne moom la ñu am Dakar luñ ci def jéego bu ndaw rek war nañ ko mën a réussir. <laughs> waaw ci jamono joo xam ne li nga xam ne itam moom moo jëm ci wàllum tàggat yaram benn aspect bi la nga xam ne la ñu ci bari dañ koy euh, fàtte ginnaaw euh, loisir itam ci la bokk euh, mbirum stade ak li nga xam ne moom moo jëm ci ndaw ñi fu ñu mën a di am amala yoo xam ne mbirum tàggatu. Mhm. loolu problème la pour commune bi. ndax bi ñuy ñëw am na stade bu ñu fa fekkoon te stade bi parewul ba léegi nag stade bi parewul suñu budget ren dinañ ci jël xaalis pour mën a compléter clôturer stade bi loolu am solo la euh, du tee nag chaque année quand dañuy appuyer nawetaan yi di leen appuyer donc yenn club yi yenn ASC yi pour nu ñuy defaree seen activité culturelle ak seen activité sportive. seen journée culturelle yi dañ leen ci jàngale bu dañ leen ci jàppale aussi am na village yu bëri yu koy organiser mais en tout cas dinañu renforcer suñu présence foofu euh, pare pare terrain clôturé ba nga xamante ne moo nekk ci biir Ndiob pour pourquoi pas dans les années à venir mën a en tout cas des des terrains multifonctionnels. Mmh. Mmh. lu am solo la parce que léegi ñu ci bare ci yëngatu. Mmh. terrain yi di ko defar di ko luyee. non terrain non seulement dañ ko yëngatu mais aussi dañuy promouvoir ce qu'on appelle le sport le sport scolaire. tel xam nga liaas yi dafa nekkoon du dee loolu bokk na ci la nga xamante ne suñu programme dafa dundalaat ko uh-huh. am nay jéegu bëri nag yu ñu ci def ndax soo gisee euh, lu tax sport yooyu am importance muy nawetaan yi muy euh, muy IAS yi uh-huh. euh, associé mooy le sport scolaire dañuy wax ci jargon bi suñu jargon professionnel bi dañuy wax ne c'est ça c'est les sports de masse uh-huh. et c'est la on dit que c'est la masse qui se crée donc il fallait que au sport de masse bi mu développé ñu am ay jeunes yu mën a émerger dans les villages dans les villes ya nga xamante ne dès le bas lañ leen di ràññee ñu xam ne ñi war nañoo mën a xarañ ba am nañu ay don ci yenn pratique sportive yi. Mhm. ñu mën leen sélectionner loolu day renforcer le sport d'élite. Mhm. donc il faut link bi euh, est très link boobu c'est très important c'est pourquoi aussi ñun ci lu ñu mën rek ñu ngi renforcer un peu le des et au niveau de, de, de, au niveau des des des écoles. Okay. lu am solo la itam parce que domaine boo laal rek am na ñi nga xam ne ñu ngi fa taxaw di xaar euh, pour nga suqali leen ci wàllum ndaw ñi wàllum financement wàllum jigéen yi itam léeg-léeg dañuy soxla itam mën a suqali seen bopp ci yenn yi. Mhm. waa loolu am na surtout dafa am benn ponk bu am dolo bu am solo ci jigéen ñi financement yi dinaa ci ñëwaat. Hmm. mais euh, dañuy ñëwoon bi ñuy ñëw commune Yoff amuñu woon benn moulin ba nga xamante ne moulin public la woon maanaam état bi mbaa mairie bi moo ko joxe tey ba ñu toogee ba lo ba ñu ñëwee ba léegi amul benn dëkk mbaa amoo bu mag buñ ñu deful moulin donc on a fait plus de vingt huit moulins joxe population yi donc loolu tamit day bokk ci euh, day alléger les travaux des femmes loolu def nañ ko donc village yëpp jox nañ leen vraiment beaucoup de moulins. Euh, ëpp na sax euh, vingt huit mai waa ëpp na c'est trente et quelques moulins la nga xamante ne jox nañ ko jigéen ñi muy machine buy wal ak machine bu sox alors def nañ ci lu bëri di alléger les travaux des femmes am nañu aussi des unités de transformation unité de transformation en savon unité de transformation en comment dirais-je Euh, di fabriquer savon des céréales lu mhm. tam am na unité ya nga xamante ne dañ leen a installé foofu pour pouvoir toujours participer à la transformation des produits locaux mhm. jigéen yi di ci yëngatu di di ci am koom-koom mais également euh, di valoriser nos produits locaux mmh. donc loolu ñu ngi ci ñu ngi ciy yëngatu bu baax bon financement yi aussi on a facilité am na mooy le dispositif ba nga xamante ne état bi def na ko fii des dispositifs euh, euh, bi état bi def. Mhm. Euh, dañ ciy sukkandiku aussi accompagner jigéen ñi. accompagner leen pour ñoom tamit ñu mën a jot ci financement yenn financement yi. Mhm. loolu dañ ciy liggéey régulièrement pour. permettre jigéen yi am na yu jigéen yu bëri ñu ngi financé DER ñii ñu ngi am financement FONGIP ñii ñu ngi am financement feneen. Mhm. loolu bokk na ci pacc bu am solo ba nga xamante ne ñun dañ ci liggéey. ok mu nekk euh, aspect bu am solo tey sunu gan di Omar Ba nekk maire bu commune bu Ndiop nekk itam vice président bu association des maires du Sénégal euh, coow li gisoon nañ ko fi bari woon na lool ba ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Yewwi Askan génnee euh, yéen Yewwi Askan wi génnee ne ñoom dinañ tabax taxawal seen. collectif boo xam ne ay maire yu yeewi lay doon euh, réaction yu bari woon na lool tey nag ñu am ci gan euh, vice président de l'association des maires du Sénégal sa xalaat gu njëkk ci mbir moomu. waaw sama xalaat bu njëkk mooy jàpp ma ne dañoo war a créer une association parallèle association des maire nekkul une association politique donc mairu Sénégal yëpp ñoo ko bokk muy maireu pouvoir muy maire opposition alors su nekkee ne association des maires seenuwu ci politique su nekkul rek renforcer les capacités des maires prendre en charge les besoins des maires yaakaar naa ne euh, besoin maire u APR ak besoin maire u PS mbaa PDS besoin yi benn la ndax attribution yi benn la et on évolue dans le même environnement donc jàpp naa ne su nekkee ne nekkul xeex nguur moo tax association boobu jóg en fait euh, AMS doy na association ñu def ko benn association muy la première chose deuxième chose bi mooy soo xoolee AMS ni ñu ko structuré ni ñu tëralee bureau yi ak instance yi da nga comprendre ne AMS nekk fi pour tendance politique ndax dëgg la président bi Aliou Sall bokk mouvance présidentielle mais premier vice président bi boo nekkoon Aliou Ndoye bi ko koy fal boobu taxaw Dakar la nekkoon nekk opposition radicale ñu fat fal ko président war ko premier vice président euh, ICS bu bal Balde nekkoon opposition moom radicale de amoon na ci vice président PDS amoon na ci vice président ba lé ba léegi le trésorier général de l'AMF e, de l'AMS il est de wàllu askan wi il est de la coalition wàllu askan wi. Abdoulaye Diop Abdoulaye Diop donc c'est mooy mooy trésorier PD mooy trésorier AMS le secrétaire général c'est mbay Dione le maire de Ngoundiane donc euh, il est de l'AFP donc xam nga ku xamul AMS mbaa ku bees moom mën a def yenn confusion de rôle yi mais soo xamee AMS da xam ne comme ni ma la ko limali nii xam nga ñun ñëpp suñu te dañuy mos a bokk di liggéey nekk benn depuis 1958 bi ne ba léegi PS jaar na fi PDS jaar na fi euh, APR jaar na fi kenn mosul dëgg ñu naan dañuy sos association parallèle des maires donc loolu amul place am Sénégal. ndax jarul ñuy politique lépp nañu jàppale li ñu boole moo gën a bëri moo gën a rëy ay sénégalais lañu suñu déggee nag fu ñu dugg rek dugal fa politique dinañu yàq lu bëri ndax xam naa ne sa ASC sa quartier soo demee sa ASC tey am na ñu fa nekk opposition hmm. am na ñu fa nekk pouvoir mais nag su intérêt quartier bi jógee ñoom ñëpp dañuy bokk liggéey supporter seen équipe organisée te doo xam ne kii PS la mbaa kii PDS la mbaa kii APR la donc nag nañuy faral di dëgëral bennoo di jàpp di di gën a dooleel la nga xamante ne moo ñu boole ñu bañ a di beddeeku di xaaj loolu cadre loolu warul donc je pense que AMS euh, bi ñëw donc dañ ko war a def benn association comme ni mën a nekk rek noonu la mos a nekk depuis 1958 y a pas de raison que ça change kon gisuloo ni euh, ñi mel ni tey xalifa Sall xam miin lool décentralisation euh, ak ñeneen ñi nga xam ni tey ñuy rempile ñu ngi seen ñaareelu mandat ñu nekk fa est-ce que jàppuloo nii itam ñoom mënuñ nañ demal seen bopp ak seen i maire mm-hmm. man waaw demar seen bopp man jàpp ma ne xalifa Sall xam naa ko bu baax euh, am ay amoon na ay responsabilité au niveau des des des association faîtières des maires au niveau de l'Afrique puisqu'il a été président du CGLUA jàpp ma ne Khalifa Ababacar Sall dina contribuer à la division de l'association des maires ndax moom xam na collectivité local naka lay doon xam na luy association des maires bi muy nekk candidat à Doub à en Afrique du Sud en 2016 pour nekk président mais ñëpp ko woteel du ta du waa taxawu Dakar doomu ñoo ko woteeloon ay maire APR dañ ko woteel ay meeru PS Sénégal toute la délégation da ko soutenir c'est la même chose pour madame Wardini bi mu nekkee candidat vice président du CGDA en 2018 euh, à Marrakech ñëpp a ko woteel donc pour pourquoi mënuñoo bennoo du question lim donc diviser association loolu dafa dafa sax gekkul ndax ñun ñëpp ay benn la ñu nañ def de l'avant notre statut de maire mhm. soo demee syndicat mais da ngay bekk syndicat yi ñëpp bokkuñu parti kii day bokk parti bi kii bokk parti bi mais su intérêt travailleur bi jotee ñoom ñëpp dañuy manko défendre intérêt travailleur yi mhm. donc je pense que xaaj xaajaloo boobu nekkul lu gën nañu bàyyi di politiser les cadres de masse xool li ñu bokk di ko dooleel moo moo gën y a pas de raison yuy créer lu tax ñu koy créer du question lim su nekkee lim kay kon APR dem créer ndax su APR moo ne ëpp ay maire donc c'est que objectif bi programme bi su nekkee jàppale aso jàppale maire yi renforcer seen capacité taxawu améliorer de seen statut jël en charge besoin maire yi mais suñu àndee lay gën a lay la ñuy gën a am doole puisque nag euh, boo comme ni mu la ko waxee léegi besoin maire APR ak besoin maire bu ku nekk ku nekk opposition benn les besoins sont les mêmes c'est les mêmes attributions c'est le même. waaw ay communes lañ jiite pour que ñu boole rek nekk benn liggéey ñu défendre suñuy intérêt comme ni ñu koy defee depuis 1958 ba léegi. dégg nañu benn expert en décentralisation Massène Niang. Mhm. nekk ca diwaanu Tëngéej nee na euh, naam coow li jug na est-ce que jotul itam ñu amal ab réforme ci biir association des maires du Sénégal. ah mais réforme pour ñu mën koo réformer ñun chaque année dañuy def dañuy def souvent suñu ay réunion dañuy am assemblée générale dañu am ay statut suñ demee kan moo ko war a réformer ndax bul jàpp euh, AMS euh, est une association privée du état mooy réformer AMS état du réformer AMS état euh, da koy jàpp comme association. Mm-hmm. alors li ma jàpp mooy maire yu Sénégal dans leur diversité politique su ñu xoolee ne dañoo war a changer ba dañoo war a réformer mais ils sont totalement libres. poser le débat. poser le de discuter à l'intérieur de la l'AMS ñu ne suñu demee nañ statut article tel nañ ko soppi objectif tel nañ ko soppi règlement tel nañ ko soppi na suñu programme nañ ko def nii loolu mooy vie associative donc nañu bokk nañ liggéey ko échanger ci te loolu suñu duggee ci débat boobu. yaakaar naa ne doo xam par parlo ndax man yàgg naa nekk AMS non seulement je suis le, le, le vice-président mais nekk naa secrétaire permanent wu AMS pendant cinq ans donc di gérer exécutif association bi soo fa demee doo xàmmee ku nekk APR ak ku nekkul APR donc ñun noonu lañ mos su mooy suñu tradition mooy suñu cosaan. Mm-hmm. donc loolu la moom mosa nekk depuis 1958. Mm-hmm. ay opposants ngi foofu ay yu nekk parti euh, mouvement présidentiel mu ngi foofu. Mm-hmm. loolu mosul am lu mosul am bu ñu ko créé day dañuy dañuy néewal doole rek. <laughs> tey euh, ci jamono joo xam ne kii nekkoon président bi di Aliou Sall moo nekkoon maire Guédiawaye nekkatu ko tey euh, assemblée général association des maire du Sénégal kañ ngeen ko fas yéene amal. assemblée générale euh, maire du Sénégal ñu ngi koy waajal début mois de mai yaakaar naa ne fekk mois de mai l' assemblée générale va se tenir euh, ñu renouveler instance yi renouveler bureau AMS donc ñi ci war a liggéey au niveau de l' exécutif ñu ngi ciy liggéey au niveau du bureau aussi ñi ci war a liggéey ñu ngi ci liggéey pour ñu mën a renouveler l' association des maires du Sénégal. Mmh. gis nañ des voix qui s'élèvent tey dégg nañ ki nga xam ni moom moo di ma Wuri Baylo Diallo bu. ko fële nga xam ne moo di bokk moomeel bu Vélingara am sax ne ñoom waa Vélingara askan yi nekkee foofu bokk moomeel yi ñoom moom lañ tànn ngir mu nekk seen candidat ndax Omar Ba moom mi nga xam ne def na juróomi at permanent ci association des maires du Sénégal am na mbébétu jiite association des maires du Sénégal. waaw xam nga moom comme ku nekk maire bokk association tu es éligible à tous les postes. Eh, ku yaakaar ne war nga mën a nekk maire am nga droit eh, ne man bëgg naa nekk maire kooku ku ku ne am na sañ-sañ boobu eh, moom nga aussi wut ñu la jàppale donc loolu moom ku ne mooy xool rek la nga xamante ne yaakaar na ne moo gën ci moom ak bëgg bëgg mu mu fësal ko ci man sama bopp nag du ma fonctionner noonu ndax dama jàpp ne président mooy liggéey mais équipe moo koy jàppale équipe soo gisee bi liggéey bi doxee équipe bi moo ci jàppale donc nag du nekk une candidature individuelle ma jikki-jikki rek nekk man Oumar Ba ne bëgg naa nekk maire euh, président AMS man ay nit laa àndal ay nekk ay maire comme man ñu yem ay grade yem ay fonction euh, amaana sax am na ñu mu ci ëpp ay capacité mm-hmm. mais ñun ñooy toog waxtaan suñ biir ne président AMS day profil bii lañ ci bëgg président AMS day disponibilité bii lañ ci bëgg ñu waxtaane ko ñu seet ka nga xamante ne moo répondre ci critères yooyu mm-hmm. mu nekk suñu candidat ñu jiital ko pour ñu mu présenter candidature am man noonu laa gisee mbir mi du xëccoo di di ŋaayoo suñu biir euh, man ci sama bopp boog man tollooguma je pense que c'est très prématuré ma yëkkati sama kaddu naan man je suis candidat pour être président de l'association des maires du Sénégal mm-hmm. bu la si joxoñee pour nga dem waaw mais loolu su ma joxoñee nag su ma joxoñee boobu dinaa ko seet su nekkee ne man tam dëppoo na ak la nga xamante ne man noonu laa gisee te mu attan ko mën na nekk man ma ma ma ma nangul ko sama collègue yi mm-hmm. bëgg nga ko ah, ah su nekkee daal liggéey moom liggéeyal pour maire yi kenn bañu ko waaye nag nekkul ci kaw diiroo nekkul ci kaw xëccoo day nekk ci kaw waxtaan luñ ma sas nag muy liggéey te ma nekk maire te mu arrangé ba mën naa cee jàpp liggéey ci mm-hmm. est-ce que mën nañ am tey euh, Omar Ba am jàppandalu euh, maire yu APR ne demal ñu jàppale la. non maire APR moom yaakaaru du du ma beddi maire APR ndax ñun du ñu gisee noonu man mair APR la euh, loolu dëgg la. maanaam bennoo bokk yaakaar ndax maire yaakaar ak yeneen maire man ni ma amee am naa ay xarit ci ay maire yi nga xamante ne nekkul benn bokk yaakaar. am nay maire ñi nga xamante ne mais duñu naan ba est-ce que doo nekk candidat te nekkuñu nekkuñu APR. ah am na ñuy wax ah, am na am na am na bien sûr am na ñi nga xamante ne bokkuñu APR te dañu maa ne waa mais monsieur Ba yow de soo nekkee candidat dinaa la jàppale ma ne leen suñu xoolee rek su ma jotee dinaa la wax ndax candidat la am du ma nekk candidat donc affaire u maire affaire association des maire dama bëgg ñu génn ci question langue politique bi ndax ñaare temps dernière association bi rek lañu def sax ay élection mais ñaare consensus lay nekk et par acclamation soo xoolee même bureau bi ñu tër nii def nii Aliou Sall dong lañ ci fal voté mm-hmm. ndax ni mu demoon mais li ci des yëpp post yëpp les soixante postes par consensus la avant Aliou Sall musuñoo voté association des maires dañuy waxtaan trouver consensus par acclamation ñu fal ko donc loolu laa bëgg ñu jàpp ne du affaire par parloo nañ ci génne par parloo ku ci dugal politique da nga xamul AMS ni mu fonctionné. Mm-hmm. ku ci dugal politique xanaa leneen nga séddu mais nekkatul prise en charge des besoins des maires te yaakaar na ne jekkul ci Sénégal. ñuy def une association parallèle ndax nag Sénégal dafa nekk référence mm-hmm. sur le plan de la démocratie euh, nekk référence en matière de décentralisation mm-hmm. euh, te dëkk yi ñu wër yëpp doo ci gis benn dëkk ba nga xamante ne am na ñu ñaari association parallèle soo demee ba France am nay oppose le président actuel mm, de de de de l'AMF l'association des maires de France mm. monsieur Barouin mm. mais il il il est, il de l'opposition donc nañu génne dëkk yëpp noonu la ñuy fonctionner Sénégal wàllu ràññee boppam nag ci ay problème politisation excessive des instances des achats des des des de de l'association des maires bi dugg ci naaj yeex indi ay association parallèle mhm. loolu du jekk ci deru Sénégal mhm. dalaloon nañ fi euh, maire bu Dalifort nee na itam bëgg na bii di ñëw mandat bi ñu sentir ci présence su ndaw ñi ci bureau bu association des maires du Sénégal loolu lu normal la loolu c'est tout à fait normal que on prenne en compte en tout cas euh, euh, le rajeunissement des maires. Il y a beaucoup de maires qui sont jeunes, qui ont émergé, qui ont été élus, et je pense qu'ils ont parfaitement leur place au niveau des instances. Il faut que ñu dugal leen ci en tout cas moi je suis porteur de cette proposition de dire dans nos négociations et dans nos discussions et dans la recherche de, du consensus qu'on accorde une large place aux jeunes pour qu'ils puissent jouer leur rôle et assurer aussi la relève des de, de de loolu am solo la mais monsieur le ñu wax ci wàllum politique. Mhm. Euh, politique APR nga bokk gis nañ ni ki nga xam ni moom moo di seen njiit di euh, président coalition Benno Bokk Yaakaar di Macky Sall ay mission la santaane woon ci quatorze régions yi ngir ñu dem waxtaan ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di responsable yi ci li ngeen génn ci élection locale yi waaye Yewwi nee nañ da ñoom ñoo gañe waaw Yewwi suñu waxee dañoo gañe ah léegi moom. ni koy wàññee ñi lim eh, xam nga ci lim rek la ñuy seet kuy gagné élection. Mm-hmm. ñun nag lim boo limi rek mën nga xam ndax ñoo gagné ndax. suñu ko gagné Dakar gagné Diourbel gagné Thiès boo xoolee yooyu yëpp ay axes yu am solo la. man waxuma ne dakaar eh, amul solo waxuma ne eh, Thiès amul solo mais il faut retenir que tous les maires sont d'égale dignité donc du ma suufeel par exemple ne man wan man waa Ziguinchor la maa gën waa. waa comment dirais-je waa Dagana mbaa man maa gën a comment dirais-je waa Linguère mbaa mbaa waa Matam man yaakaar naa ne tegginu woon sax ñu koy waxee noonu. Mm-hmm. alors euh, suñu waxee élection locale ñaari référence ngay am pour xam ne ku gañe da ngay lim le nombre du collectivités territoriales. Mm-hmm. donc sur les sur les cinq cent cinquante sept ou cinquante huit collectivités territoriales. Mm-hmm. Benno Bokk Yaakaar am na ci 438 collectivités territoriales même ki def conférence de presse bi euh, keroog di wax affaire division mu ne il a dit 81 maires yi ñu am ak président te boobu da cee boole président de conseil départemental yi donc kookay ay na boppam mën a am 81 sur plus de 600 collectivités nga ne yow yaa gañ xanaa nag politique boo mel noonu waaye moom ci boppam wax na ne ci vingt 81 yi ñu am dañuy créer suñu association des maire kon nangu na dañ ko gañe alors soo ko fan fànn boo ko dugg rek. Mhm. su nekkoon élection présidentielle Macky Sall day jàll au premier tour loolu nag ñun la ñuy renforcer seetaat nag comme mission yi nga wax ni mhm. envoyé des missions sur le terrain. gën a nag élargir pour que euh, euh, suñu victoire bi ñu am ci local yi ñu gën ko fësal ci élection législative maanaam suñu résultat gën a yokku ndax Dakar dafa mos a nekk ville ba nga xamante ne opposition de ko yàgg a gagné c'est pas nouveau Ablaye Wade Ablaye Wade bi muy nekk kii bi muy nekk opposant il avait gagné la ville de Dakar donc loolu ñun bi ñu ñëwee aussi on n'avait pas gagné la ville de Dakar on a beaucoup avancé nag puisque soo xoolee à Dakar élection yu mujj bi ñu def en 2014 benn commune lañ gañoon à Dakar Alors maintenant, on est à plusieurs communes qu'on a gagnées à Dakar, donc qui sont avec nous. Donc je pense qu'on a accompli un important pas, on n'a pas reculé, on a avancé à Dakar, on a avancé à, à Thiès, on a, et à Thiès, on a perdu à Thiès à cause de la division. loolu yëpp nag la ñuy tiré et puis gën a fës yokk suñu victoire bu baax. ok ñu ngi dem ci ay élections législatives tey gis nañ élection législatives yooyu Yewwi Askan Wi ñoom nee cohabitation lañ bëgg ci élections yi nga xam ne moom ñooy ñëw est-ce que yéen itam. ci seen wàll euh, yéen a ngi pare loolu. non ñun moom suñu xel sax demul ci co cohabitation ndax on va gagner les élections comme on a l'habitude de les gagner toutes les élections. qu'on a da ngeen xam résultat yi ba pare. non du dañuy wóoru suñu doole xam nga soo déggee mbër bi nga ne kii maa ko mën dama koy dóor daan ko xam nga sëggaguñu da ngay dëgg suñuy def suñuy def comment dire seen show da dëgg mbër mi ni kii maa ko mën dinaa ko dóor dinaa ko daan. alors ñun aussi foofu la ñu wékku xam suñu doole xam fi ñu toll nekk ci askan wi xam yéene askan wi moo tax xam yéene askan wi ci ñun moo tax ñu ne ñun itamit ñii dinañ leen dóor dinañ leen daan incha allah élection législative dinañ ko gañ. est-ce que liste parallèle naru leen sooxal ci élection locale yi li fi am euh, wala da ngeen jàpp nii bi yoon liste parallèle du am comme ni ko président Benno Bokk Yaakaar ñu ko waxee. Mhm. yaakaaruma liste parallèle mën a am bi yoon. mbaa su amee itam dina néew lool ndax dañ ko teel a jógal nag ndax ñu ngi ay mission yi comme ni nga ko waxee dem nañ ci commune yi dem nañ ci département ci département yi waxtaan ak suñu camarades yi waxtaan ak suñu militants yi wan leen ne élection bii c'est une élection euh, ba nga xamante ne nationale c'est pas une élection locale les réalités sont totalement différentes ndax am na ci ay gox ya nga xamante ne par souci de démocratie pour permettre aux populations locales de choisir librement leur maire le président avait accepté des listes parallèles mhm. donc loolu ñëpp xam nañ ko ay il avait accepté que des que des camarades d'un même parti puissent postuler dans des listes différentes mhm. donc loolu nag loolu nag loolu c'était la réalité de l'élection locale mhm. ndax la l'élection locale n'impacte pas le résultat national mm-hmm. alors que dans les élections qui vont venir résultat bi nga am au niveau local day impacter au niveau national à travers la liste nationale mm-hmm. donc moo tax euh, li ñu autorisé woon Euh, dans au niveau des élections locales. Mhm. duñ ko permettre au niveau des élections euh, législatives. ñuy wax parrainage ñenn ci opposition bi ñu ci bari nee nañ d'accorduñ ci li nga xam ne moom moo jëm ci euh, parrainage bi ñenn ñi sax dañ naan mécanisme bi te nee nañ itam ñi nga xam ni ñoom ñoo di waa CEDEAO amoon nañ lu ñuy wax ci parrainage bi yéen dafa mel ni da ngeen jalgati mbir mi. waaw xam nga opposition moom. yaakaaruma ne du ñu d'accord ci leen man gisuma lu opposition lu ñuy def ne ñu yëkkati ñu ne d'accord nañ ci man dina ma doon na ma bett lool ñu ne d'accord nañ ci xam nga soo waxoon sax léegi di dindi nañu parrainage soo sàggadee ñoom dinañu revendiquer ne bëgg nañu parrainage ndax ñoom noonu la ñuy réfléchir noonu la ñuy fonctionner mais démocratie dafa am le Sénégal est un le Sénégal est un de démocratie. Mm-hmm. c'est une référence en matière de démocratie foog ñu renforcer la démocratie sénégalaise. Mm-hmm. ñu ñuy kenn réerewul mbir ne la France est un grand pays de démocratie mm-hmm. c'est le berceau de la République mais suivre nga élection yi nga xamante ne ñu ngi koy dégmal mm-hmm. en France dafa am système de parrainage mm-hmm. il a des beaucoup de candidats qui se sont retirés puisque ils n'ont pas réussi le nombre de parrainage Ramayad mbokk Ramayad bi buggee nekk candidat à la présidence mujj ko àggale ndax amul doon suffisamment de pare Belgique kenn wul mbir ne Belgique c'est une grande démocratie mhm. donc dañuy def système de parrainage donc loolu nasaxal xelu nit ñi rek daan laan du démocratie démocratie mooy loolu ku amul parrainage xam nga eh, parrainage bi genre primaire la su nekkee yow mënoo am zéro virgule huit pour cent des électeurs yaa xay buli jël moyen sénégalais yi seen impôt yi nga koy dépense di dep di ko tirer kooku ay huit millions de bulletins jox ko sécurité jox leen ay kii de communication ñu yàq yàqate mënuñu am dañu dañuy dem élection kan moo bëgg a bokk mhm. ñu ne voilà ku am zéro virgule huit pour cent mën ngaa bokk ko amul na nga dem ànd ak keneen. donc day tax euh, choix bi gën a leer et day tax aussi ñu mun a économiser ay moyens. ki ndax ñenn ñi dañuy utiliser comment dirais-je euh, les élections pour se faire de la publicité pour se faire connaître ndax ku amul. ku mënul am 0,8 pour cent wóor da la ne soo demee élection moom da ngay utiliser les temps d'antenne yi la yoon bi may rek pour faire ta publicité mais c'est pas pour avoir des députés donc li le parrainage mhm. est un système de filtrage qui renforce la démocratie et vraiment qui nous permet su xam nga am na su waxee ne yëpp na nekk ku mu neex mën nga nekk candidat mhm. sans filtrage ñu am fi plus de deux cent ou trois cent listes ñu war a voter pendant quatre jours cinq loolu yàq démocratie donc ça c'est c'est c'est banaliser la démocratie c'est banaliser les élections je pense qu'il nous faut un système de filtrage dire que ku bëgg nga ñëw mais condition yi mooy que nga mën a am au moins 0,8 pour cent des engrais nga dem toog ku ko amul nga dem toog nga ànd ak keneen. ci jamono joo xam ne euh, mel na ni njiitu réew mi mu ngi leen di dem di may loxo. Mhm. parce que mi ngi waajal ab tournée. Mhm. Euh, war a dem ci inauguration bu euh, pont bu Foundiougne. Mhm. mel na ni moom loolu moom buñ ko tuddeewul politique moom xam nañ ko mën a tuddee. ah waaw xam nga moo ko defal est-ce que mën nañ ko ko xam nga depuis indépendance bi léegi. Moussa pont Foundiougne ku xam Foundiougne ak jafe-jafe yu ñu doon am amuñu woon pont mu defar leen pont xanaa kay su ko defee am na droit dem dem de xam nga moom Macky Sall il a tellement fait de réalisation que day passer toute l'année à inaugurer il part il va tout son temps à inaugurer soo xoolee pont pont pont euh, comment dirais-je Foundiougne bi. Mhm. pont Marsassoum bi. am na yeneen pont yu muy te ba gannaaw ba mu taxawee ci pont Gambie bi. donc nga yokk ci ay terre beeg yokk ceeg BRT yokk ceeg aéroport bi lim ci def lim ci donc je pense que réalisation yooyu mhm. nañ ko jàppee politique suñ ko ne moom def ko moom moo ko liggéey mhm. pose de la première pierre ak inauguration amul président bu jaar Sénégal ci defoo ko donc yaakaar naa ne bu buñ ko soxoree nag moom moo ko defal donc nañ ko bàyyi mu inauguré ko. ah bu ko inauguré moom xanaa kañ la ñuy faral suñu premier ministre la. waaw xam nga nag faral xam nga Sénégal dafa nekk un pays de droit. xam nga moom moo ne dama introduire dama proposer assemblée bi ñu votel ma ma dugalaat poste premier ministre. assemblée autorisé ko loolu xam nga moom moo am initiative bi. Mm-hmm. moom moo am initiative bi pour premier ministre bi di ko jàppale dans la gestion des activités de de de de de l'État alors mais comme moom moo amoon xalaat bi. proposé ko mais nañ ko may nag mu choisir le moment ba nga xamante ne moom moo koy ndax y a aucune contrainte juridique qui l'impose qui le met dans des délais pour l'imposer à créer un poste premier ministre s'il s'il lit une, une certaine lecture de la situation nationale il trouve que c'est pas le moment peut-être qu'il va le faire peut-être qu'il va pas le faire moi je ne sais pas quand est-ce qu'il va le faire mais je pense que comme la loi lui permet de choisir le moment de nommer son gouvernement mais qu'on le laisse le qu'on qu'on lui laisse aussi cette opportunité que l'État que le, la loi lui donne am na solo Omar Ba waxtu bi ñu cërale woon jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo ak ñi nga xam ni ñoom ñoo di mbokk auditeurs yi nga xam ni ñoom ñu doon déglu waaye ñun suñu wàllu bopp am nañ mbégte lool dalaloon la tey ci émission gox bi ci rajo Rewmi FM. donc di ci njëkk rek comme ni ma ko commencé woon dama leen di gërëm di leen sant ci seen liggéey bu rafet ba nga xamante ni yéen a koy taxaw ñu leen di suivre nag ci seen émission. Euh, di rafetlu aussi cëral bi ngeen coxal cëral gox yi maanaam commune bi def une émission spéciale jagle leen ko ñuy ñëw di waxtaan ak yéen ci loolu donc loolu dañ koy rafetlu lool vraiment au nom de tous les maires du Sénégal ñu leen ci remercier et ñu ngi koy rafetlu personnellement aussi am naa contenté bu baax. vraiment pour ñëw ci invitation bi di nuyu seen auditeurs yëpp nag di leen ñi ñuy déglu di leen jaajëfal bu baax en tout cas di leen ñaax bu baax ñu préparer législative yi votel massivement la coalition Benno Bokk Yaakaar kon yow moom door nga campagne bi ba pare dama koy door door ci réew mi FM <laughs> am na solo kon ñu sant ko gërëm ko bu baax a baax moom Omar Ba nekk euh, bokk moomeel bu commune bu Ndiop nekk itam vice président bu association des maires du Sénégal moom lañ doon dalal tey ci émission gox bi mbokk yi jox leen dig daje beneen dimanche beneen invité fii ci rajo Rewmi FM